bu dee kaawu Sonko nag moom bu dee kaawu Sonko mooy Sonko buñ ko falee ci réew mi mooy erreur bi gën a mag ci Sénégal loolu laa gëm senegal nag yàgg naa def ay erreur def nañ ko ci du Dia sacrifié ko. def nañ ko Cheikh Anta Diop jaroo jariñoowuñ xam-xamam ba ci maître Babacar Seye sax rey nañ ko leeru ay erreur rek ci lañ dëkk waaye erreur bi gën a mag nag mooy ñu fal Sonko ci réew mi loolu moom mooy erreur bi Sénégal mooy mooy erreur bi yóbbu Sénégal kat appi moom loolu moom man général maa la ko wax waaye nag jeunesse bi maa ngi leen di woo ñu yeewu ay naxaate ak ay kàcc kenn du ci fal président nit koo xam ne musoo jël musoo jiite sax conseil municipal man conseil municipal la man Touba fii damay gérer ci administration locale bi kan mooy Sonko Sonko gis naa ko muy wër këri diine yi avant 2000 kotos daawu ko def man maa ne leen Sonko jullit jullitam sax wérut ndax nungul dogaloo yàlla ba léegi gëmul na Macky Sall mooy président ndax boo nungul dogaloo yàlla sa njullit wérut yàlla moo ko wax ci alxuraan ñun ñëpp ay dongay daara lañ loolu laa bëggoon wax rek mu leer. léegi yéen nee nga Sonko moom fi mu nii kenn waru ko fal président te ndaw yu bëree bëri moom lañ àndal président Macky Sall moom instant taxaw ngeen de du toogaat troisième mandat kon yéen kan ngeen xalaat ñu def ko kan ngeen bëgg non man dama ne président Macky Sall troisième mandat bi ñun ñun ñii ñii ñëpp troisième mandat bi duñ ko ko joxaat laa la waxanteel nii muy fal ay Aliou Sall ak ay Mansour Faye ay gorom duñ ko ko jox dañ kaa jox première bi néew ma duñ ci ànd ak moom parce que nee naa la fii lu du alxuraan mën naa soppiku waaye ñun est-ce ñun dañuy nekk ay ay ay dañoo nekk déglu ma rek il faut ñun dañuy nekk ay yambar yoo xam ne dañuy fal rek ba noppi après ñu topp si ginnaaw.